asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yu Kaolack TV dal leen jàmm ci xibaaru àllarba juróomi fan ci weerub avril atub ñaari junne ak ñaar fukk ak ñett bokk na ci ponk yi gën a fës jàkkaarloo bi nga xam ni moom la Baye Ciss doon amal ak taskatu xibaar yi loolee sax ngir gën a mën a waxtaanee lii di ab projet bu ñu tëral ngir rek soppi xar kanamu lii di Medina Baye dëkk bu sell boobee ak fayda bi naka noonu it fépp foo xam ne fayda bi daal di na fa yegg gannaaw lu ne Sénégal ni kii démb sax lan ko amal ci dëkk yu fasantikoo yi féetee fii ci biir réew mi loolee moo waral fii ci diwaanu Kaolack gouverneur bi di Ousmane Kane daal di addu jëmale ci bile euh, jotaay loolee sax moo waral mu teew ci benn euh, plateau bu Kaolack TV doon amal daal dina addu jëmale ko ci thème bi naka noonu it lancé ab message ndaw ñi gannaaw loolee des nañu leen ci tegal lii di xibaaru euh, tàggat yaram yi léegi léegi la ñuy daal di dugg ci faram fàcce bi. ñu ko waxe ci tambali gi mom moomee di bay si sen ki barki dembo la amal apo jakarlo ak taskatu xibaar yi li nu mel sax ngir gën a mën a waxtaanee fësal daal di andi projet bi nga xamni dal di mën ko teg ngir rek soppi xar kanam mirina bay dekk bu sell bobé ak fepp fo xamni fayda bi yegg na fa li nu mel sax toll ci 150 millions de milliards de francs CFA lolé lañ ci bëgg def ci duro bu ñenti at bay Ciss lañu ñuy ay kàddoom ci micro bu Papa Messi Diop Amen. nañu jël suñu bopp en mai que ñun taalibe Baay xam ne tour du monde ngay def pour mën dajal taalibe bay. fu faut ñu nga fa. te fee léegi xalif bi gàmmu daaw daal di décret pour nommer ma man en tant que euh, responsable des grands travaux de la faïda tiyania. pourquoi pas de Medina Baye de la faille de mooy fu dëkk fu dëkku Baye Niass nekk war nañ fa mun dem pour rénover ko pour defaraat ko donc mu nekk ay projet yu yu rëy fi ngeen toog nii fii la ñuy at bu jot donc daaw xam nga ne ci taw dafa taw donc at yii di ñëw tamit on a dit peut-être 5 ans ou 10 ans day taw gàmmu day taw est-ce que dañuy toog di xaar tant yi di inondé ak ndox wala dañuy jël suñu ah suñu matuwaay ba nga xam ne donc donc grand travaux yi ñu commencé ko ci esplanade pour bugg mu pare fii gàmmu gi maintenant au-delà bi bi ci gën a rëy mooy jumaa ji waaw ah, dañuy defar jumaa ji moom ngeen gis na ne donc defaraat ko ba mu nekk.

pour que temps wu même jour ordinaire nit ñi dinañ mëna circuler librement pour ñëw Medina Baye fi dina am benen këru gan hôtel des autres lañ koy lañ kay wax këru gan bu bess so xolé amna station d'épuration et de potabilisation des eaux so xolé ci gannaaw ci tan bi di nga chaque année su tawé ndox yéeg fa lay dem atterrir fofu dañ koy jël def fa bassin de rétention def fa ben unité de traitement des boues des eaux usées des eaux de ruissellement Nous avons ñu boole ko fa ci bassin de rétention bi traité ko avons bu ko ci beneen unité bu koy potabiliser tabax yeneen ñaar wala ñetti château d'eau ou Médina Baye va être autonome en eau n'est-ce pas après on a une centrale solaire de 10 MW. on avait dit 20 Le président ne feu surdimensionné a def 10 MW. donc les 10 MW, on va ici Mbadakhoune une cité bu ñuy tabax boo xam ne suñ mbokk yi bëgg a dellu siwaat bëgg a ñibbi donc suñ ñëwee am dëkkuwaay donc loolu mooy projet wu am na jumaa Dakar la grande mosquée Cheikh al Islam de Dakar donc du to après nag ñu topp dëkk bàyyi fu nekk jumaa yi ñu defaraat yi ñu laalaat yi et cetera c'est ça l'agence des grands travaux de la Fayda Tidiania. balle on est parti pour quatre ans à peu près hein. Voilà, quatre bonnes années. On est à plus de 150 milliards CFA. Moi, participation la suis bon bon bon bon sa participation bon donc euh, déjà le président de la République a donné 300 millions pour faire. pour pour parce que le président a donné 300 millions déjà bon Talibé, am na ñuy indi ciment am na ñuy indi fer am na ñuy indi béton am na ñuy indi lii am na ñuy indi la dëkk diine yëpp noonu lañ koy tabax. man man maa commencé balaa kenn non non non non balaa kenn di ñëw man maa commencé. balaa kenn di ñëw xaw ma ndax nit dina ñëwam du ñëw maa commencé. dañuy daal di desandi ba tey ak boobu les projet bi pa sax kii di Fati Cissé di njiital ab entreprise moom moomee sax ba tey nekk ab taalibe Baye taalibe fayda bi loolee moo waral mu daal di génn rafetlu li nga xam ni moom la Baye Ciss mébét ngir soppi xar mu dëkk bu tedd boobee Babacar saar moo ñu teewlu ay kàddoom. appel bi mooy lan ñun lancé nañ liggéey ñëpp teg nañu suñu bët yaa ngi dégg. Mhm. jumaa baa ngi nii. Euh, tante bi mi ngi noonu ñu ngi gërëm kii ne euh, nu mu tudd sax euh, Baye Ciss Baye Ciss parce que ñu ngi gis projet bi mu ngi ci loxoom te dëgg yàlla liggéey bi mu ngi avancé képp ko romb di dem xeega ni boo seera ni nga gis ne liggéey bi mu ngi avancé te comme ñu ngi ko gërëm bu baax ci loolu mm-hmm. parce que loolu yombul xalifa bi yëkkati na teg ci loxoom te moom tamit dégg-dégg mu ngi ciy taxaw mm-hmm. dégg nga lenn rek moo fi am mooy lan képp ku ma mun ku mun a jàpp doole ak xaalis boo am boo am xaalis sa doole mun nga dem même bu dé ben brique sa nga dañ yëkëti ña nga dégg ku am xel mën nga dem nga jox né sa xel mu daf la ni bo boo daf ni li mo gën ku nekk hmm. sa di lo mëna japp dal jàpp képp ku nekk mbok talib lo mëna japp jàpp rek mën nga mën nga japp ñi tey fi ni am nañ suñu association bo xamné ne ñun ah, ay hausa lañ ñom ñoo xamné ne ñoo ko créé ñun dimbalante suñu biir juma ji baye wi chaque weer dañ koy raas comme ñaar yoon ci biir weer bi non lañ koy défé barki dembu koo xam ne suñu président nag mu ngi tudd Mouhamed Gali waa Ghana la jaar na sama place ba mu taxaw mu expliqué ma mu ne ah liggéey bii nii bu ñu def euh, fële ci kii bi. Euh, ci bi mhm. dëgg-dëgg suñu association bëgg na mhm. comme yow toog nga man xalaat loolu. léegi dañuy def réunion comme lu mu wan bu ñu def réunion ñu toog ñu waxtaan ñu xool li ñu a jàpp parce que loolu mbiri bàyyi ñes la parce que loolu ñun def ñu ko bàyyi siis def ñu ko kenn Baye Niass lañ ko defar te Baye ko ko defar rek yonent bi nga ko def. te ku def mm-hmm. yonent bi yàlla nga ko defar. niki démb la ñu daal di fêté 63e anniversaire bu Sénégal loole sax am ci biir Sénégal wërgal këpp noonee sax la amee fii ci diwaan bu Kaolack waral kii di gouverneur di Ousmane Kane daal di àddu jëmale ci lu ni mel Kaolack TV lañ koy daal di suivre. mu nekk lu dal sunu xel. parce que fête de l'indépendance dafay wane ni rek benn nation lan benn lan te defe naa loolu moo feeñ tey si défilé bi donc di sant di gërëm ñëpp euh, di ñaan yàlla def jàmm si réew mi donc ñu yàgg ko féete di souhaiter à tout le monde une très bonne fête de l'indépendance si thème bi euh, thème bi ñu retenir dañoo dafa nekk benn jàngat pour xool force de défense de sécurité yi ñun mën a dugalee seen loxo ba nga xamante ni gàncax bi dinañ ko aar muy si wàllu environnement si wàllu ressource naturelle mais si wàllu li nga xamante ni Sénégal daanaka fi ak euh, jamono ju ndaw rek dina si dinañ ko si tudd muy di produire pétrole ak gaz xam nañ ni généralement loolu fu am rek souvent donc day am ay problème de sécurité moo tax très tôt à travers ce thème bëgg leen see tàggat ba nga xamante ni dinañ sa gën seen loxo ba jëy yooyu yooyu ñuy gis yeneen euh, dëkk yi mu bañ a ak sa Sénégal euh, suñ xel dal na si parce que bu fekkee loolu la euh, xam nañ suñ force de défense de sécurité yi am nañ xarañte bi am nañ formation bi mais surtout comme ni nañ ko suivre démb gis ngeen effort bi état bi di def si wàllu équipement si wàllu renforcement des effectifs pour gën leen a kattanal ba mission boobu ñu leen denk ñu mun ko remplir dans les conditions les meilleures njiital takk der bi fiitee fii ci diwaanu zone bu Kaolack moom it daal dina àddu ni ki démb ci 63e anniversaire bi nga xam ni moom lañ doon féetee fii ci diwaanu Sénégal de di fàttali contentement bi nga xam ni am na ko ci défilé bi nga xam ne am na démb di rek wone li nga xam ni moom mooy yar ak na jëm ci ñi di militaires yi ak képp koo xam ne mu ngi sol tenue loole bokk na ci ay kàddoom ñu teewle ko ci micro bu Kaolack TV lu damay rafetlu rek lu ñu dellu su lu ñu maanaam lu ñu mën a ooyee cosaanu 4 avril ak défilé grand format bi da xam ne défilé civil ak militaire fête bi nag ñëpp jàpp nañu feetu sénégalais yëpp la di feetu ndaw yi ak du feetu taqadeer yi gis ngeen ko démb ci retraite au flambeau yi euh, ñëpp génn nañu ànd ak euh, force défense sécurité yi ci mbedd bi tey tamit buñ ñëwee ci avenue El Hadj Ibrahima ñas ñëpp taxaw nañ fii xale yu ndaw yi

Nous tamit euh, gis ngeen euh, défilé euh, lu may wax rek défilé bu ñu gis force défense sécurité yi ay force défense sécurité yu discipliné lañ lu ñuy def dañ ci ànd ak fayda dañ koy waaj léegi nag xam naa ñu ngi comme gouverneur bi fête bi mais lu tax mu am c'est que daa am ñu bëri ñu ci dugal seen loxo di gouverneur nga xam na ne moom ak adjoint am le président du conseil départemental yeneen euh, structure état yi ak ñoo xam ne ay sénégalais lañ ñoo xam vraiment dëkk ci Kaolack duggal ci sen loxo pour que ñu mëna organiser ben fête bu melni vraiment ñu leen gërëm bu baax au nom de toutes les forces de défense sécurité njiital conseil départemental bu Kaolack di Ahmed Youssouf Benjeloum ci 63 bi moom it daal dina addu rek gannaaw sax bi mu waxee ci li nga xam ni moom mooy thème bi daal dina ñaax rek ak lancer message ñi nga xam ni ñooy ndaw ñi ngir rek ñu bañ a wuyu ci woote gu ñu leen di woo jëmale ko ci tàllum réew mi ndax ndaxte ressources naturelles yi dañ ko war a fonk bu baax a baax Ahmed Youssouf Benjeloum la ñuy teewlu ay kàddu. fête boo xam ne kon boog ñun nekk ci au premier rang des des personnes yi nga xam ne assisté cette cette défi ce défilé de très haute facture défilé bu mag lañ fi def tey tey jii nii mun naa ne Kaolack ñeewuñu benn dëkk tey ci défilé bu neex ndax tey jii nii moom muy civil yi di waa l'armée bi ñëpp def nañ fi défilé bu am am solo comme na ngeen ko gisee donc may profité foofu rek di féliciter larme bi. di féliciter force de défense yëpp mais tamit di féliciter civils yi nga xam ne ne ñoom itamit participer nañ ci défilé bi. waaw mais dama ne sama mbégte dafa yokk bu ma gisee ne ren thème bi dañ ko def ci préservation des ressources euh, naturelles may wax nag ne ressources naturelles depuis 2016 dañu bind ci constitution bi que ne sénégalais yëpp ko bokk kon bokk aar ko ñun ñëpp la war du armée bi rek ba tax na may fàttali ne sénégalais yi nag ne leen yoon bu gën a gaaw ci euh, aar ressources naturelles yooyu noonu mooy ñu fexe ñu jàmm gi am Sénégal nuñ ko suqalee nuñ ko gën a suqatalee gën koo taxawal gën ko approfondir ndax nag euh, ci jàmm ci la lépp xaj su jàmm amul doo tala exploiter sa pétrole su jàmm amul doo tala exploiter sa gaz su jàmm amul doo tax doo tala bénéficier wu sa ressources naturelles ba tax na maa ngi wax foofu noonu sénégalais yeeg sénégalais yëpp jox ne ne ñun ñëpp war a aar suñu moomeel yi nga xam ne ne nature moo ñu ko jox ba tax na comme te na jàmm ci la lépp xaj ñu sénégalais yeeg sénégalais na ndaw yi nañ won ginnaaw bépp nit boo xam ne ne moo ngi leen bëgg a tàlloo dëkk bi loolu daal laa laa ci wax ne thème bi thème bu d'actualité la thème bu intéressant la mais alhamdulilah ba ñu Sénégal nekk équipe bu jamono gannaaw bu mu amee ay jafe-jafe jamono yi ñu génn ni kii bi lëndi gi dina dellu waat ci loxo kii di njiital équipe bi nga xam ni moom moo fi nekkoon di bàyyi siis loolee sax moom ci jëmm boppam moo ko daal di xamle ci jàkkaarloo bu mu amoon ak taskatu xibaar yi lu ne mel mu ngi ko xamle ci micro bu El Hadji Baba Wade mu nekk sama club mu nekk sama club de sang mu nekk sama club de de de de de donc nous jëlee leen nawetaan ñu des régional yóbbu national ba yóbbu leen bon donc loolu moo taxoon ma leen doon accompagner mais bi ma demee ba gis ne dafa bëri ay problèmes ni qui n'ont rien à voir avec le football j'ai démissionné et j'ai arrêté donc de diriger le club après trois années d'absence euh, suñu ay mbokk suñu ay xarit suñu ay frère suñu ay sœur ñu seet si ma ne ma club baa ngi gën a wàcc et que véritablement dañ bëggoon ma dellu si donc de à la date d'hier dellu si naa pour jàpp ci pour yóbbu ko fu ma ko bëggoon a yóbbu au départ ak ay nit yu bees yoo xam ne nii euh, ñoom ñooy ñëw doxal club bi ma teg leen nag ay exigences

foo ñu mën a nekk ñu jëli jëleen ñu jëli leen man loolu may sama wax naa leen ko naan fu club fu joueur mën a nekk dem leen jëli ko maa fi njëkk a tabax njëkk a tabax hôtel des hôtes des des joueurs du dëgg ñu inauguré ko fii en grande pompe bon mais mënoo def loolu yëpp ba pare joueur duñu équipe bi du gagné man li ma xam mooy gañ laa gañ dañu recruter joueur fu mu nekk ñu indi ko waaye dañuy gagné comme ñi ma nit ñi comprendre nañ léegi xam nañ ma ne man

loolu lu nuyoo tàggoo xaj bu njëkk ci xibaar yi tàggu na ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk lay doon di xibaaru tàggat yaram ñu teelu ko Bayern Munich la ñuy daal di tàmbalee xibaaru tàggat yaram yi bu bees bi di te mu relancé kii di Leroy Sané ak Sadio Mané naka noonu Cancelo tamit bëgg na ko relancé waaye teewul mu taxaw tem rek ngir am beneen attaquant bu bees lu ni mel ngir gën a mën a renforcer équipe am bi bu sukkandikoo ci li ñu a am ci ay xibaar jàpp nañ kii di chargé bokk na ci attaquant yi nga xam ni su deful ay résultat d'ici là des nañu ko sacrifier ngir rek mën a jënd beneen euh, attaquant wàllum judo sélection nationale bu junior bi naka noonu bu senior bi des nañ leen xaarandi week bi ñu jublu foofee ca Uganda lu ni mel sax ngir mën a participer ci open bu judo loolee sax nekk loo xam ni dafa waral équipe bu Sénégal am ñaari défi ci kanamam muy open boobee nga xam ne war nañ ko amal naka noonu it daal fa xool nu ñu def rek ba dajale ay points yu bari ndax dina leen permettre ñu gën a mën a a jëmale ko ci jeux olympiques jàppalante ngir am point yi nga xam ne bokk na ko. dara doxatul jamono ji ci diggante Ada Fass ak ay supporteram loolee sax moo waral mariage bi nga xam ni mu ngi ko doon amal foofee ca dëkkam ñii di yi daal di ko yàq andi fa xeex bu rëy rëy lu waral ñii di supporteram mer ba futt bokk na ci ab ñàkkub hygiène de vie bu Ada Fass naka noonu it manque de professionnalisme ak nu mu impliqué woo ci biir politique bi ci jamono ji nga xam ne violence bi def ci lëmbe bu baax a baaxal lu ni mel sax moo waral ñenn ci supporteram jàpp ni Ada Fass du def carrière bu exceptionnel bu génnul jamono ji ñu toll ci li loolee boo gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram tàggat yaram moy daldi ndar kep suñu jotay yu xibaar cyant ak ngeureum lay doon jëmele ko ci Baymor ak équipe technique bi nga xamni ñom ñoo japp ci liggéey bi ba lepp yemu naka non yeen yi nga xamni yeen ngi doon top Kaolack TV di leen ñaanal jamm ak salam ngeen top rek li di programme télé bi rawatina boulevard bi nga xamni mom moy mooy seen plateau spécial buñu leena andil ci weerub koor bi di leen jox dig dajé ba suba inshallah